mbokk yi dañu leen di gërëm di leen sant ci xaar bi waaye dafay loo xam ni mënul woon a ñàkk parce que daf fi am loo xam ni gan la fi lii nga xamante ni nii mooy parti bii di PASTEF dafa soppi doxilinam ni mu ko soppee mooy constitution bu Sénégal ci 2016 dafa indi ne parti politique yi kat am nañ lu ñuy soppeekoo ñoom ñu méngoogu loolu raxas seeni tex indi bankas bu bes bo xamantene mo moo leen di saytu ñu ne nak bankas bobu ki koy wala ñaar ñi ci té bokku ñu ci bokku ñu sen parti mais ki koy jiite du bokk sen parti mais ñett ñi ci parti bi lañuy ñuy bokk ñu ni bànqaas boobu noonu luy élection ci parti bi moo koy saytu ñu ni dañu bëgg ñu defal leen des arbitrages démocratiques ci kaw lolu xam ngeen ni élection présidentielle japp nañ ko 25 février 2024 donc parti bi di PASTEF dafa bëgg dem ci joŋante yooyu pour mu dem ci nag il faut mu am candidat am ci loolu nag dafa waroon a organiser ay élections te pour ñu organiser élection boobu noonu kenn rek moo ko mun a saytu muy la haute autorité moom rek moo mun a aussi joxe baat parce que bu décider bu dogalee ñëpp dañ ciy tënku ci loolu ci la ñu organiser élection bi ba mu jur lu mu jur mu bëgg leen koo tënkal bi ci njëkk mooy dañuy wax ne déclaration la ñu bëgg a def lutax ñu bëgg ko def moy dañu bëgg wax né kat li di parti PASTEF organisé na donc li nga xamantene moy ki nga xamantene candidat bu war a doon partem bu fa wara nek pour mën ko taxawal manam ki nga xamantene mom la bëgg ngëm ci lolu PASTEF dafa top code électoral bi parce que 46 départements yi fu ci nek dafa am coordination diaspora bi aussi bo xoolee 8 départements la non la ko code électoral bi tënkee donc ci département yi nga xamanteni mo nek Sénégal yépp coordination yi dañoo voté Biñu ñu voté ñoom ñëpp li wax moy le président Ousmane Sonko la ñu ngemb djébal ko lengé yi pour mu nek candidat ci diaspora bi aussi amna 45 pays yo xamanteni ni Pastef fofu lañ ko représenter. Ñom ñëpp dañu joxé ay procès verbal ñu tënk ko def ko ci 8 départements ñom ñëpp aussi dañu né le président Ousmane Sonko mom lañu désigner désigné pour mu nek candidat parti Pastef

kon nga xamante ne haute autorité bi mom dafa indépendante de la direction du parti limu yott ci suffrage mom lay càmbar xol ñu xol xamni amul rature amul contestation amul euh, benn ben gak gak li ñuy wax sincérité ak crédibilité d'une élection ci lolu ñu xamni kat xol def suñu enquête gis ni ñépp ñi woté ci wat bu crédible lañ ko def parce que amna signature indil nañ ñu PV yi biñu xolé xoolee xol nañ ni ci coordination yépp le président Ousmane Sonko mom lañu voter parce que buñu faté ni ben candidat rek mo amone muy ben candidature muy le président Ousmane Sonko ñi nga xamoon mon nañ ko ci ay électeurs 1606 la ci 1606 yoy ñepp a voté bi ñepp voté aussi kenn voter wu ci bulletin blanc bulletin blanc ci Sénégal bu ngeen xoolee Pastef dafa transparent parce que même haute autorité fay exiger loolu manam élection bu am ben candidat rek ci lañuy mëna bulletin blanc au Sénégal à côté mais su amé ñaari candidat rek bulletin blanc do am donc bimu amé bulletin blanc bulletin blanc bobu kenn jëlu bulletin nul aussi amul manam mun na baña a nga ñëw nga duggal ñaari kii wala PV bi am rature wala dara wala quelque chose comme ça donc lolu dañ ko teg de côté parce que zéro bulletin blanc donc biñu ñëwé ñu am suffrage valablement exprimé ni ñu koy jàngalé man bi koy jàngalé sax ak étudiants même buñ ñu koy wax dafa yomb ñi journalistes yi yéen sax des koy jàngal nit ñi parfois jour élection bu amé suffrage valablement exprimé avec eh, nombre de votants la moyen bulletin nul fi zéro bulletin nul am donc da ngay xamni kon 1606 suffrages valablement exprimé Les suffrages suffrage valablement exprimé bobu daw boo ci digg bi yok ci ben ci ngay am la majorité absolue normalement sax warul won nek ben parce que 50,001 la rek waye xaaju voix amul motax plus voix ci bi constater ci le président Ousmane Sonko matal na lolu waye non seulement matal waye lepp liñu voter mom la am ça veut dire que 100 la am ci kaw autorité de régulation bu PASTEF ni président Ousmane Sonko bi constater vote bi ñu càmbar ko saytu ko xool ni kat li opération démocratique la parce que ci base bi la jógee ñew ci kaw parce que Pastef non lay doxee ci la haute autorité bi dogal nak dogal bi mu jël dafa né ki nga xamante modi président Ousmane Sonko juddu 15 juillet 1974 feulé sa ties ba paré nga xamante ben nationalité rek la am parce que loolu aussi ñun dañ koy xolalé ba paré nga xamante aussi amna tous ses droits civils et politiques manam dara tënku ko ci walu yoon pour mu mën nek candidat biñu sayto lolou kat ñu ne moom moom mooy nekk candidat PASTEF ci élection présidentielle bu 25 février 2024. et ci kaw lolou la haute autorité dogal bi mu dogalé aussi ñun ñi nga xamantene dañu doon siéger aussi à l'unanimité biñu xolé donc décision bi donc nonu lañ ko jëlé donc ça a été décidé à l'unanimité d'ailleurs sax bu ngeen xolé yeneen juridiction yi wala dara du ñu wax lu décider mais nous en termes de transparence parce que dañuy def aussi comme Fenen am fa États-Unis bu benn juge d'accordul wala keneen day génn ni d'accorduma li ñu opinion dissidente donc du rek dañuy xool France ci wàllu justice ak wàllu yoon ni ñu koy doxee waaye dañuy xool ci dëkk yépp noonu la parti Pastef di doxé noonu lañu xolé doxal ba nga xamanteni mbir mi amul benn gak gak lépp a donc ki di président Ousmane Sonko mom ci bopam donc parti Pastef tabb na pour mu donc mu ci élection présidentielle bi waaye proclamation résultat yi proclamation la bu ñu ko defee mooy kat jàpp nañ ni kii kat lañ désigné officiellement haute autorité bi daf koy investir da une koy gis ci élection présidentielle président bi bu conseil constitutionnel déclaré ni fal nañ ko taxul mu nekk gum président day dem prêter serment léegi investiture officielle bobo, moi genre prestation de serment bobo. Manam ci kanamu haute autorité le président Ousmane Sonko di taxaw ñu ne ko investir nañ la lolu nak direction parti bi ñoo koy donc définir wax ci lolu mais li ñu mëna wax dal moy haute autorité bi décidé na té lolu lañ leen bëggona a wané ni aussi transparence ci constitution bi lañ ko def ci préambule té lolu day tënk parti politique yi ndax article 4 bu constitution bi moy wax la bonne gouvernance associative des partis politiques di leen gërëm di leen sante non, non, non. Il n'y a pas de question. C'était seulement un point de place. On vous remercie. Je vous remercie.